asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur réew mi FM ñi nga xamante ni sa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen mission social toute la ville en parle euh, samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ci samedi bi euh, tey ñu fas yéene waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni liggéeykatu autoroute à péage bi ñu ngi koy faral di euh, jànkonteel lan moo waral situation bu ni mel ak tamit ban solution lañ ci mën a andi moo waral tey ji ñu dalal ki Kilé euh, di Mortal euh, Ndaw nekk membre bu collectif des employés de l'autoroute à péage ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax euh, Ndeye Moro mm-hmm. di sant bu baax a baax aussi ci wala di la gërëm ci dalal bi ñu dalal. Mm-hmm. ñun waa autoroute Ila Touba di préciser que boo waxee autoroute à péage rek. Mm-hmm. ñaari autoroute la mën nañ jàpp ne Eiffage la wala. or que ñun ñoo nekk ci. ilaa Touba bi. Mhm. maanaam jàpp commencé Thiès jàpp Touba Bambey Xombal. ainsi de suite. Mhm. bokkul ak Eiffage. Mhm. ñun ñoo nekk ci ay jafe-jafe moom ñu ngi ci jàmm. Eiffage ñoom ñu ngi si jàmm yéen a nekk si ay jafe-jafe euh, léegi euh, seen collectif bi lan moo na naka la taxawee exactement. xanaa ma defal benn rappel bu ndaw rek. parce que xam naa ni <clears throat> comme ni ma ko jotoon waxee si yeneen sorties yi ma jotoon def parce que jotoon naa def ay sorties. que ni ñun dañoo commencé liggéey ci autoroute bi depuis euh, mars deux mille dix neuf. Mhm. bi ñu commencé dañu signé woon benn contrat un an ak euh, benn société intérimaire. parce que mhm. société mère bi. Mhm. Euh, engagé engagé wu ñu woon directement. daf ñu joxoon société intérimaire. du nom de Intelliman management intelligent. ñu def un ak moom mu renouveler ko muy deux fois CDD. ñu jóge foofu ñu indil ñu Makineuse. bien vrai que Macinus ak Intelliman dénomination rek moo changé. Mhm. benn nit bi moo ko moom. Mhm. ñu jugee foofu muy trois contrats. Mhm. c'est-à-dire def nañ trois ans kon CDD. léegi kooku dafa jeexal ci le février passé. mu am benn société bu ñu indilaat beneen société intérimaire. boo xamante ni mooy wuyoo si turu Tara intérim. wala Tara consulting comme ni ko gars yi di waxee rek. mais li ñu gën a surprendre nag si arrivé Tara boobu parce que ñun dañu doon xaar ñu embauché ñëpp xam nañ ni mënoo enchaîner di def ay CDD CDD boo hmm. defee deux fois CDD automatiquement. war nga am CDI war hmm. ñuy xaar CDI ñu defal ñu troisième CDD waxatuñ dara ñu indi ñu beneen société boo xamante ni moom avant son arrivée déjà moom wàññi woon na ba pare quoi. Hmm. wàññi na personnel bi nombre ci <coughs> cent trois personnes. ci cent trois yooyu noonu bi ñu relever information mu dem ñu bloqué leen. parce que dama bëgg a def d'une façon ramassée rek. historique bi tuuti parce que yi si ñu comprendre bu baax fi muy ëpp solo après. Mhm. léegi moom ñu bloqué loolu. Euh, Ageroute na leen léegi ñoom nañu delloo contrat yi nekkoon. Mhm. et que bu ñu wàññi kenn nañu respecté personnel bi euh, respecté euh, nu mu tudd nombre bi ñu fi fekk. Mhm. bu ñu wàññi salaire yi comme ñoom ñu ngi ko jàppee woon bu ñu dàq génn ainsi de suite. ci yooyu <coughs> ñu yaakaar ne fa la yem bi ñu commencé ñoom léegi dañoo ñëw. proposé ñu benn contrat boo xamante ni durée bi trois mois la c'est-à-dire contrat à l'engagement décès la ko décès mhm. d'engagement la mhm. ma yaakaar ne nag ki nga xamante ni te exercé na benn métier boo xamante ni trois ans la ko def mhm. kooku déjà bi euh, am na expérience bi ki nga xamante ni am na expérience nag yaakaaruma ne kooku da nga ko war a essayer ñu indi ñu contrat boo xamante trois mois la ñu ne ñett ne duñ ko signé parce que après trois mois yooyu li ci nekk ci ginnaaw xamuñu ko xamuñu ko léegi nag foofu la collectif bi juddoo parce que ñëpp nee na duñ ko signé si loolu nag ñu créé benn collectif boo xamante ni ñu ngi nekkoon ci trois cent soixante-quatorze personnes. Mm-hmm. léegi ñu dem rencontrer DRH bi bi nga xamante ni CRBC euh, moo ko fi teg ak mm-hmm. euh, Sagam. Mm-hmm. bi ñu ko rencontré en premier expliqué ko exposé ko situation bi mu wax ñu dem leen ngeen fiñe contrat yi. ñu expliqué ko carrément que contrat yi mën ñu koy signé parce que ñun phase embauche lañ nekk. ñu waxtaan mu ne signé leen ko ñu proposé ko contrat yi ko ko. ci loolu nag remarqué na ni contrat yi am na ay erreur mhm. mu ne donc donc da ngeen ñuy xaar léegi ma dem ñëw ma ñëw revenir leen mhm. dem toog di xaar mhm. ngeen toog daal seen kër non non ñu ngi continuer di liggéey malgré lépp ñu ngi continuer di liggéey waaw amul abandon de poste amul yooyu yëpp amul ñu ngi continuer di liggéey malgré jafe-jafe yu ñuy dund yëpp léegi bi mu demee rencontré Tara Ageroute affaire yooyu bi ñu ñëwaatee mu ne léegi signé leen contrat yi ñu ne contrat duñ ko signé temps yooyu nag ñoom ñu ngi doon def ay tuuru gaar bi ay vingt heures di forfait nit yi pour ñu signer contrat mhm. ay trois mois ñu dañoo bañ. biñ demee ba xam ne lii nag jëmul kër ñu ne dañ koy def contrat bi un an. Mhm. avant boobu agir woon nañ ñu waxtaan. biñ demee exposé leen situation bi yëpp ñoom ñu jël ay engagement biñ jëlee ay engagement nee nañ carrément que duñ seetaan ñuy wàññi personnel bi duñ seetaan ñuy wàññi salaire yi ainsi de suite. aussi tamit contrat yi duñ ko def trois mais dinañ leen ñaan ngeen signé un an. parce que en attendant parce que dafa am benn société boo xamante ni dafa nekk ci en phase de mu taxaw quoi projet la boo xamante ni mooy euh, société bi ngi tudd ADS. Mhm. les autoroutes du Sénégal. Mhm. parce que ku ne xam na ne tamit xanaa yaakaar naa ni autoroute bi waru yam Ila Touba rek war nañ dem Saint-Louis war nañ dem Kaolack ainsi de suite. ainsi de suite donc dina normal ñu teg euh, société boo xamante ni. mooy gérer autoroute Sénégal bi yëpp. Mhm. loolu neex naa dégg. Mhm. bien vrai que waruñu woon signer un an. Mhm. mais ñu nangu signer loolu malgré. mais si biir loolu dañoo jotoon dund tamit ci yeneen yeneen euh, employeurs yi bi jàll. ay jafe-jafe yoo xamante ni buñ la ko expliquer da naan lii ndax mën na nekk. tey man miy wax ak yow su may dem liggéey su ma yóbbuwul ndox du ma naan. du ma aw ma aw ma euh, prise en charge. médical. waaw soo feebaree yaay faj sa bopp maay faj sa bopp parce que dina mettre nañ en disposition ay IPM yoo xamante ni tur bi moo fi nekk rek. Mm-hmm. waaw parce que gis nañ fi ñu def ay accident de travail yoo xamante ni tey ñoom ñëpp jël seen bopp en gis nañ fi ay cas de yoo xamante ni tamit ba léegi mi ngi noonu daal ñooñu ñaan yàlla yërëm leen seen mbokk yi ñoo ñàkk. Mm-hmm. léegi parmi difficulté yooyu ñu dund yëpp yëpp yëpp ñu exposé waat ko Ageroute ne leen carrément ñun li ñu jotoon dund tey jii ñaanu yàlla dundaat ko. tey ñu tegal leen seize points. tegal leen daal de meilleures conditions de travail seize points revendicatifs. Mhm. parce que comme ni ma la ko waxee rek. seize points yooyu yan la. seize points yi parce que dañoo gis ni. Mhm. Euh, contrat yi ñu signé mooy euh, yi passé ak bii yëpp lépp quarante heures la ñu war a liggéey parce que mooy lu yoon mooy mhm. mooy yoon wax. la semaine ñun on fait quarante huit heures. donc chaque mois am nañ trente deux heures yoo xamante ni fi may wax ak yow ni bi autorité bi ba léegi mas nañu ko fay. ñu ne yooyu danoo bëgg tey li nga xamante ne moo jot a moo jot a passé daan ci def appel ñu fay ni ko mais itam kii di door a ñëw tamit mu jéem a respecté engagement yooyu noonu nga xamante ni daf ñu koy fay mois moom mars la commencé daf ñu koy commencé fay comme ça di jot a jàll après ñu topp ci xool loolu muy joxe beneen bi mooy suñu versement IPRES yi euh, euh, IPM ainsi de suite yooyu yëpp dañ ko respecté ñu bu fekkee dañu changé woon tamit suñu contrat yi convention bi. Mm-hmm. parce que ñun CCC lañ nekkoon domaine domaine commercial lañ nekkoon. kii bi mu ñëwee daf koy yóbbu ci BTP. te ñun nekkuñu ci construction yooyu yëpp nangu na ko changé. Mm-hmm. mais ci point parmi point yi ñu teg yooyu yëpp ñaar rek lañ ci respecté ñoom. Mm-hmm. mooy contrat bi def nañ ko un an génn nañ ci convention BTP bi demaat ci CCC bi. hormis loolu li si des yëpp yëpp yëpp. ba léegi nii. changé wuñ si dara dara changé wu et jëloon ay engagement yu leer carrément ni ñii dina leen pousser à ce que yéen ngeen jotaat seen ay acquis ak yi nga xamante ni tey euh, yoon may na leen ko seen àq ak yelleef. Mm-hmm. ngeen kii si. Mm-hmm. boobu ba léegi nag commencé dañoo commencé woon def ay sorties médiatiques takk ay brassard rouge mais ba léegi mosuñu baaree mosuñu def dara dañoo takk wane suñu mécontentement. Mm-hmm. léegi bi nga xamante ni tamit président waroon na dem euh, inauguré bi. la veille woon nañu ñu ne bu ñu sañoon ngeen tekki brassard yi parce que boobu ñëpp xam nañ président bu fa jaaree gis mhm. nekk loo xam dañ koy def euh, du rafet daal du leen di yàqal. waaw mhm. ñu daal di tekki parce que lu ci mënti am ay kilifa lañ toogoon di wax. Mhm. jàpp ne seen wax bi tey amaana tey société intérimaire bi dina ko respecté ñu bàyyi noonu daal di toog du leen déglu mois de mars avril ba dugg nañ mais fi wax ak yow nii société bii nii lu dul xanaa ay peut ay intimidation wala yu mel noonu jéem a forcer nit ñi def leen li wëllale ñu ko léegi nag tey boo gisee tey ñu accepter def sortie bii nii c'est juste que dañoo def dañuy def alerte dañuy alerte parce que su rek ba ñuy at mm-hmm. li ñu nekkee woon maanaam dinañ takk brassard et cette fois-ci dañuy passer à la vitesse supérieure. Mm-hmm. mais lan ngeen di euh, liggéey ci ci autoroute à péage bi Ila Touba léegi boo boo gisee collectif bi. waaw lan mooy seen liggéey collectif bi. Mm-hmm. dafa dafa ëmb. mboolem képp nga xamante ni tey am nga benn tâche booy def ci autoroute bi mhm. tey ki ngay fekk ci box bi receveur bi mi ngi si biir mhm. kooku am na chef d'équipe mi ngi ci biir am na gestionnaire mi ngi ci mhm. biir ay OPC mooy ñi yoru caméra yi opération de contrôle yi ñu ngi ci biir moo jàll laalaal tamit ci femme de ménage yi ñu ngi ci biir parce que femme de ménage yi tamit ñoom ñun ñoo leen xaw a tane foofu parce que ñoom tamit même type de contrat bi lañ leen woon mooy trois euh, ñu proposé ñu trois mois mais ñun li li lay wan ni affaire yi dafa xaw a doy waar. Mm-hmm. ñu nag ñoom depuis début bi ñoo bokkoon employeur mooy Intelliman ak Mecnews bi nga xamante ni moo génn. Mm-hmm. mais bi Taaraa ñëwee dañoo jël femme de ménage yi ber jox leen benn société bu tudd essentiel. Mm-hmm. boo xamante ni wax dëgg yàlla essentiel moom jàpp ñun sax société la. ñu proposé leen trois mois ñoom tam dañoo bañ duñ ko signé. ñenn am na am na ñu jot a dàq si ñoom licenciement yoo xamante ni kenn nanguwul arrêté mi ngi continuer liggéey nanguwuñ ko fay. Mm-hmm. parce que dañ ko ne carrément dañ la waxoon mm-hmm. léegi ñoom ba léegi ñu ngi daw si contrat yi pour ñu si changer leen seen type de contrat boobu ñu leen tegal wala durée bi. bi nga mm-hmm. xamante ni trois mois lañ leen proposé et ñoom un an bëgg wala ñu jël leen verser leen si suñu société. mais ba léegi ñoom seen employeur dafa def ñett dafa bañ. ñoom tam ñu ngi ciy di dox di si wax ba léegi. beneen bi mooy MSA bi mooy patrouilleurs yi ñoom tamit ñëpp a leen tane. booy xool parce que ñoom boobu ba léegi contrat six mois lañ am. Mhm. trois ans ba léegi benn contrat rek lañ amagum. six mois six mois renouveler lu ñu leen contrat amu <clears throat> ba seen statut changé wul seen salaire yi de même te ñoom ñu quarante huit heures la ñuy def ñoom cinquante deux heures la ñuy def la semaine. Mhm. te kenn mosu leen fay benn benn benn benn nu mu tudd heure supplémentaire ñoom tamit léegi ñun ñuy collectif nag. Mhm. ñooñu mën a limal ñëpp. la ëmb. ñoo ñëpp la ëmb. ñëpp la ëmb am na ci autoroute bi am ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñoom ñoo gérer tey boo demee Eiffage da ngay gis ñu wax carte rapido. Mhm. soo ñëwee si ñun carte xéewal. ñi nga mhm. xamante ni ñoo ko gérer ñu nekk ci ETC euh, e bi. Mhm. electronic toll collection bi. ñoom tamit même chose ñu ne ma bokk sóori ñoom tey fi ñu toog bu ñu bëggee jot seen supérieurs yi seen moyen bopp la ñuy jël woote téléphone. am tegaluñu leen foofu sax benn interphone benn téléphone boo xamante ni di nga mën a joindre sa sa sa supérieur donc yooyu yëpp ñu bokkoon ci li nga xamante ni dañ ko exposé waa Ageroute ñu jëloon ci ay engagement yoo xamante ni dañ yaakaaroon ni instant bi dina fekk ni leneen la wax lu dul loolu mais dañu gis ni li ñu doon dund tey dafa gën a pire ñu gën a génnaat tey jii di alerte bu baax a baax ñu xam ne instant bi ngeen ne yéen yéen yéen nekkoo leen si jàmm waa Eiffage ñu ngi si jàmm lan moo leen utale ak yéen waa waa Eiffage exactement Eiffage type de contrat sax du benn hmm. parce su dee juumuma ñoom ñu ngi ci contrat boo xamante ni seen durée c'est indéterminé. CDI ay CDI léegi ñun ñi nga xamante ni nag ñu nekk ci Ila Touba bi ñun la ñuy def ay un an un an dagg-dagg tey soo gisee ñu indi la benn société defal la un an defaat ko renouvelable changé ko indi keneen parce que bëgguñu la signer CDI et que ñu ne la ADS la benn société boo xam ne dafa war a pare. ma yaakaar ne société bi tey bu dee Eiffage am na benn durée de vie boo xamante ni dafa gum mm-hmm. ne ne autorité bi yemul dina am beneen kon société boobu waroon na nekk loo xamante ni bu doon bëgg nañ ko taxawal taxaw na ba léegi nga xamante ni bu ñuy ñëwee rek danañ verser société bi et que la continue mm. mais ba léegi ñu ngi ñuy dawloo ci ay ay société intérimaires yoo xamante ni wax dëgg yàlla mm. seen liggéey mais pour yow lan moo tax euh, mm, employé yi nekk Eiffage gën a am de meilleures conditions de travail ah peut-être ñoom tamit ñi leen ñi leen si ñi leen gérer la rek parce que ñoom ñoom ñoom Sénac lañ Sénac lañ lañ bokk mm-hmm. est-ce tubaab bi moo gën a xam àq liggéey rek <laughs> parce que parce wax rek nit ku ñuul moo jàppoon moroom nit ku ñuulam di jaay mhm. dama yaakaar ne loolu lañ bëgg a continuer fii rek Mm-hmm. di yow naka nga intégré bay euh, liggéey ci autoroute bi comment ça s'est passé exactement. nga autoroute bi. Mm-hmm. tey boo tegoon dix personnes ku fi nekk mm-hmm. ni nga dugg see si autoroute bi bokkul. am na ñoo xamante ni dinañ jaar si ay dépôt. am ñoo xamante ni dinañ jaar ci ay connaissances. ainsi de suite am na koo xamante ni nijaay wala papa mooy jàpp ci loxo indi. boole yow ku jàpp yow ku ku. <laughs> man ci ay dépôt laay def rek jaar. baraaloo nga jaaree wala xaw ma baraaloo ma dara maa ngi nii. waaw. léegi euh, beneen question bu ñu lay laaj bala ñuy ñëwaat si jafe-jafe yooyu le euh, lan moo tax péage bi ça coûte cher pour yow yow mu fay liggéey. ça coûte cher si ban domaine si ci euh, nu mu tudd ci exploit kii exploité wala yow mi yor sa oto di jaar. yow mi yor sa oto di di jaar. di jaar lan moo tax mu cher pour ah, yow. est-ce que loolu question étatique tamit. Mhm. Ah, parce que tamit est que li ñu war a fay mat na wala li ñu war a fay kañ la war a yem tamit. parce que dañ ne comme ça péage bi li muy génne ci xaalis kon yéen ñu fay liggéey. tey ji waru leen woon taxaw di di kaas. wax dëgg yàlla waroon ngeen nekk ci ci condition yu baax loolu moo doon moo nekkoon li nga xamante ni moo war a nekk yoon. Mhm. waaye tey damay ragal ni ñi nga xamante ni ñoo ciy liggéey ñëpp ñëpp laay wax dañu ciy liggéey ñoo ci gën a perte. parce que tey ñoom li ñu seq ak man mii tey li wax ak yow. Mhm. mooy weer bu dee nu fay ma. pare na amul leneen. soo feebaree lijjanti wuñ la. feebar bi dee ko dégg rek. ñii de bi ñu ñëwee indi nañ bi ay IPM IPM Tara la tudd dèjà ñoom IPM ñu indi seen ñoom ñoo ko moom. te yow mi dëkk Touba boo fe parce que ilaa Touba la ñu wax waa am na ñu jugee Touba di ñëw. Hmm. am na ñoo xamante ni tey bu nekkee Touba nga feebar pour nga am nu tudd prise en charge yi. Hmm. wala yooyu noonu il faut nga war a déplacer wu ñëw ba Dakar. est que hmm. feebar war na mën a xaar loolu. donc ñooñu du ñu am accès ci yi. ñu jóge Diourbel de même ñu ñu nekk Dakar rek ñoo ciy xaw a tane te du tane sax. Mm. parce que hôpital yi ñu lay yóbbu tamit ay principal la wala yu mel noonu pour benn salaire boo xamante ni matul dara. ah mais pour pour ñun yéen ñiy liggéey foofu yéen ngi laal salaire yu duuf par rapport ak péage bi ni muy génnee xaalis et ça marche. xam nga ñoom ñi ngi naa ma sax. Mm. waroo di wax waroo di wax salaire yi wala yooyu. mais tey ñi ngay romb ñuy dund risques yi. Mm. maanaam ñi ngay romb ci cabine ñuy fanaan. di liggéey yenn heures yu métti si cabine ba egg si wax mm. gëm nga ni fayeekoon deux cent mille ah maa la wax loolu tey de amuñ sax deux cent amuñ deux sax deux cent mille ñu ci ëpp ñëpp wala ñëpp kenn ñu nekk si cabine yi mm-hmm. amuñu deux cent mille ñaa oto yi buñ jaaree ñoom la fay jox carte ñooy pollution bi la pollution sonore aussi saaga chauffeur yi parce que des fois gis ku ñëw gis ni péage bi dafa cher mu sippile ko yow mhm. yaakaar mel ni comme si yow yaay yow yaay fixé prix yi wala yu mel noonu mhm. yooyu yëpp yaa koy yaa koy endossé am mhm. problème quoi mën nga ko dékku mais aussi na ko jar mais nañu xam ne jaru ko mais xam nga Sénégal dañoo am habitude di di wax benn affaire que ni comme on bi dafa supérieure offre bi et que liggéey dafa manqué wala yu mel noonu dafa manqué si dëkk c'est à ou à laisser d' accord yow daal bu ñu mënee jàpp la mooy euh, liggéeykat yi nekk ci autoroute à péage Ila maanaam dañuy dund exploitation dañ leen di exploiter. bu baax a baax a baax léegi comme li ma la ko waxee rek. gis nga hmm. société bi bi mu ñëwee. Hmm. bi ñu toogee ci table de négociation daf ci bokkoon à hmm. ñu wax leen ne nañ xool euh, salaire receveur yi ñu revoir ko à la hausse. ñoo xam nga dañ ko bañ. mais carrément loolu même bu dee bañuñu ko tamit. loo xamante ni dafa war a jël temps la li ñu war a mën a la. Mm. maanaam mun ñu leen yokkal seen salaire. Mm. d' accord nañ mais bàyyi leen suñu salaire nu mel mais deux mois yi ñu fayagum u yokkute yow ngay wàññi. dañuy dagg ci mm. yow dagg ci kii dagg léegi yow boo koy dégg. da naan 2000 bëriwul mais boo ko multiplier par personnes mm-hmm. tu te retrouves ak weer bi da laal au moins 600000 mm-hmm. bi da lay environ kon yow kii fii at bi di jeex wala fii ak ci péage bi ñaata lañu war a lekk moom. Hmm. te kenn du wax au nom de quoi. léegi autoroute à péage bi Ila Touba euh, fay bi naka lay demee exactement. fay bi waaw on est bancarisé. Hmm. dañuy virer dañuy am nañ am nañ ay banque quoi. Hmm. c'est-à-dire am nañ ay compte bancaire dinañu virer. Mhm. non ñi fay jaar fay bi ñaata la ñuy fay oto yu ndaw yi yu mag yi si de suite léegi da ngay xool par exemple comme ma niveau bi ma nekkee niveau bi ma nekkee mooy càmbox entrée entrée Thiès bi mhm. entrée Thiès bi yow foofu nga nekk fu ma nekkee tey boo ñëwee ci catégorie 2 mooy oto bu ndaw bi mhm. moom da fay 1000 francs léegi bi bi njaganjaay bi tata bi yooyu 1500 la lay fay camion yeeg yooyu yu mag yi 2000 la lay fay particulier bi. particulier bi mooy comme oto bu ndaw bi rek. catégorie de yooyu 1000 lay doon. léegi bu fekkee da jógee Dakar dem ba Touba ñaata segment ngay fay. boo ñëwee ba si ñun. Mhm. si ñun comme li ñu concerné ñun. Mhm. di ñëw si ñun nga fay 1000 francs boo demee ba BPV Thiès mooy Thiès sud bi. Mhm. nga jël carte bu dee Touba nga dem boo demee ba Touba nga fay 2500. donc ñaata lay revenir par exemple si oto bu ndaw bi. oto bu ndaw bi moo tax gars di leen ko sippi. waaw <laughs> ah, dinañ la ko sippi kay. <laughs> mais li si ëpp solo. Mhm. loolu moom xam naa ci ñee lay doon. mais ñu li si ëpp solo. yéen liggéeykat yi suñu condition de travail léegi man dama lay ni man tooy su ma xëyee di xëy di xëy parcelle. Mhm, exactement naka ngay def parcelle génnee. dama war a xëy 4 du matin wala 5 foofu la la war a fekk. non pas 4 laa war a yeewu parce que bus bi dafay départ 6 heures. Mhm. daan na départ 5 pour kii paase. léegi pour ma préparer wu. Mhm. pour génn suma kër rallier bus bi nga xamante ni tey Nabi Chikar lay taxaw. Mhm. léegi fajar boobu quatre heures ah, cinq am na bus bu leen di déposé. am na bus de bus mhm. léegi man mi war a génn parcelle pour ma dem ba Nabi à cinq heures du matin car du daw de. bus du daw donc lan laa mën a jël. taxi ok pour dem jël kii bi. bu ma jëlee taxi dem damaa war a ndékki bu dee añ def ma fa fekk war naa ut lu ma lekk. te su ma liggéeyee manqué damay fay. Mhm. donc yooyu yëpp may may may jëlaat xaalis bi di ko dépensé waat. Mhm. di ànd ak bus bi dem. léegi loolu weer bi dee naat laa war a dese. Mhm. boo si génnee transport bi. sa ndékki sa añ li ngay lekk. waaw ñaata mooy des. presque li ñu leen di fay day des si transport bi. ak lekk bi foofu lay des. donc kon ñu ñu ngi dund loo xamante ni. wax dëgg yàlla métti na métti métti waaye boo xamante danoo. danoo muñ di muñ rek. Mhm. toog di déglu di waxtaan tamit di def ay ay nu mu tudd ay démarches. Mhm. di dem inspection di dem di ñëw di dem ci médiateur. Mhm. parce que envoyé nañ médiateur courrier. parce que boobu ba léegi yan yan autorité ngeen dem waaye gis leen waxtaan ak ñoom ci situation. xam nga da ngay xool ci autorité compétente. actuellement ñi ñi ñi mer ñëpp ñaata personne lañ. instant péage bi est am na ko bëgg kenn bëggul de. <laughs> dafa am ñoo xamante ni auto dafa am dafa ñoo xamante ni automatiquement rek biñ ñee takk. dañoo ñëw adhéré ci mm-hmm. collectif yi. Mm-hmm. boobu 374 la ñu woon. Mm-hmm. mais entre temps gars ñu bëri ñëwaat nañ gën na bëri. ba gën na bëri bu baax a baax ñëpp bi ñuy dund la même situation ñëw nañ adhéré ci collectif bi tànn quelque ne leen yéen yéenay suñu bopp. yéenay suñu làmmiñ yéenay suñu tànk. demal leen waxal leen ñu ngi leen di déglu. waaw léegi comme ça si liggéey bi noonu nga manquement am ñu calculer mu am manquement. da ngay fay léegi naka lay demee naka ngay fayee. sa xaalis ngay génnee joxe tey dama dama liggéey. sur le champ ngay fay wala dañ koy dagg ci salaire bi. tu as 48 heures. 48 donc doo xaar salaire. non doo xaar salaire mënoo xaar salaire comme tey jii nga am manquement wu 100000 francs da nga koy fay. parfois da ngay dem lijjanti 100000 francs fay ko dans 48 heures. da nga koy lijjanti wax sinon yenn yenn yenn collègues yi ñooy ñooy taqale rek moo suñu biir. jàppale comme ñu ngi dund solidarité. mais mais manquement boobu naka lay amee ba mu leen di dal. xam nga parfois. Mhm. nit tamit nit la nga mën a doon. Mhm. te machine yi ay machine nga tiim yow yaay catégoriser des fois oto mën na ñëw taxaw sa kanam. Mhm. nga war a catégoriser deux. nga catégoriser trois. parce que borom xel nga tam mën nga juum. al insaan la yàlla wax mën nga nekk fàttekat. boo te boo defee trois à la place de de donc kooku machine bi mille cinq cent la ko facturé. yow moom la la fay. donc na bu des. donc machine bi dafay jàpp ne kii 1500 la war a fay. machine moom li nga li nga ko interroger rek si loolu lay. si loolu lay fekk kooku 1000 francs la la fay après mu ah, dem. am na benn téeméer. Mhm. bu des parfois tam mën nga juum ci monnaie. di delloo mën nga delloo nit nga lu ëpp. Mhm. waaw léegi li ëpp noonu li manqué su dee 2000 su dee 5000 su dee 10 000. si journée bi dans 48 heures da nga koy. da parfois boo bu dee wàcc nga léegi nii boo ko yoree nga fay ko nga dem. yow dal na la lu bëri si ban somme la la mës a dal. non man man moom lu ma dal mësula dal daf may dal foofu kay ñëpp lay dal. mais du ma dal lu bari bari bari bari mais comme gàmmu Tiwaawan bii passé am naa ci benn manquant 20000. man hmm. bëriwul même manquant am naa ci benn 20000 boo xamante ni doo xam. doo xam munoo ko expliquer d'habitude soo amee yenn manquant yi di xam carrément lii moo ko indi. Mm-hmm. mais parfois tamit mën na passer inaperçu. te boobaa si seen i poche ngeen di génne fay ko waaw léegi tam situation contraire tam mën na mm-hmm. produire. Mm-hmm. comme nga verser moom excédent. bu boobaa da xalaat ni peut yaa ko moom wala yooyu déedéet da nga joxe de. bu ëppee bu ëppee da ñoom da ngay joxe su manqué da ngay fay da ngay fay. peut-être au def benn bi ëpp dañ koy dugal système bi directement ñu téye ko comme excédentaire ñi nga mm. xam dinañ ko bind quoi mm-hmm. xam ni kii lii la ëpp ñu dugal système bi mais bu mm-hmm. manqué ngay fay da ngay fay mm-hmm. noonu lay doxee léegi tey jii yéen Mor Talla euh, lan ngeen bëgg exactement parce que ñu revoir bu baax a baax suñu ay conditions de travail xam nga ñun signé nañ contrat boo xamante ni ba léegi amaguñ retour contrat yi maanaam signé ngeen contrat te kenn indilu leen contrat yi jox leen ko. comme ça rek. xam boo signé contrat ba pare contrat yi dafa am exemplaire yow di nga ci am benn am buy dem inspection. Mhm. mais ñoom dem nañ inspection ba ñëw ban retour lañ fa am ba joxaguñu contrat yi. boobaak léegi ñaata. mars la mars depuis mars ba léegi mars ba léegi. ñu signé contrat amoo mujj. mais des na tuuti mën ngeen patienté waat peut-être. avril mai. nan la ñuy patienté ti fii. te mhm. ñu nga contrat kay nan la jox sa retour contrat parce que dans les normes yow contrat su ma la ko présenté. Mhm. am nga droit tax téye ko yóbbu ko sa kër étudier ko. Mhm. après ngeen di. mais ak ñoom amoo droit boobu de même contrat bi doo ko photo. doo ko photo doo ko tey fii ngay toog. nga signé nga liir di jeex na waaw ba léegi nag ñu toog di xaar récupéré nañu ay photo pour carte IPM yi yu mel noonu ba léegi ñu mhm. toog di xaar gisaguñ carte IPM gisaguñ dara badi sax amuñu ko tenue mhm. moom ay gilet la sol parce que société bu bees bi ñu war na jox ñu ay tenue wala yu mel noonu ay gilet la sol kii mën nañ so sol gilet Ageroute kii ñoo sol gilet UCG kii ñoo sol gilet boo xamante ni amul tur leneen mhm. ñu ñëpp daje ci benn bërëb liggéeykaay à la fin yooyu yëpp tamit mais est-ce que boobaak léegi yéen jéem ngeen see waxtaan ak seen i supérieur ñi nga xam ne vraiment ñoo mën a indi saafara ci mbir mi xam nga loolu weesuwul Ageroute mm-hmm. tey boo déggee ñu ne dem euh, demoon demoon Touba parce que bu njëkk bi mm-hmm. bu njëkkee wax parce que ku si nekk tam am foo jokk am nga ay kilifa dem nañ Touba dem nañ Ndiassane dem nañ euh, fële nu mu ci euh, envoyé nañ médiateur euh, courrier mhm. dem nañ inspection ONG Jamra par le biais de Mame Matar Gueye mhm. yooyu yëpp dem nañ seedaloo leen situation bi exposé leen ko pour te dire que tout le au courant pour ñu ëllëg si biir rek lu xew ñu bañ a wax ni yëguñu ko woon wala yu mel noonu le problème bii ni actuellement mhm. ñëpp yëg nañ ko parce que bi wax na si ñun bopp génn nañ wax si ñeneen ak ñeneen débat ji comme émission bi ni nga koy waxee. Mm-hmm. toute la nga bind. la ville en parle mais mm-hmm. fii le Sénégal en parle. Mm-hmm. ñëpp ñu ngi ciy wax. mais yéen mosoo leen am retard de salaire. quand même ñu ngi leen di fay seeni salaire. à temps le 15 ngay jot salaire. non loolu mënul nekk péage bi li muy lekk yëpp. loolu moo am man tey. oto yi li ñuy fay ni ça coûte excessivement cher. loolu dafa sori. korité lañ génnee bi passé. waaw ñun ñëpp a dem korité ji sans salaire. da ngeen dem korité sans salaire sans salaire ñun waxuñu leen dara ñoom ñoo def seen réunion envoyé ñu message comme quoi que dinañ leen fay seen salaire balaa. balaa fête balaa korité. Mhm. xam naa loolu mooy xaar ñu defal leen. Mhm. dalal seen xel comme ça doo leen wax leen ñu toog di xaar mais dem korité ba ñëw. ngeen toog korité gisoo leen dara. ngeen dem ba ñëw ba dem ba ñëw ba tegaat ay jours ñuy door a fay. ay la quinze. ñun la ñu tàmm fayeeku ñun. Hmm. mais quand même amul euh, salaire payé ba léegi. si. am na parce que merci tax nga su yaa ma suluñu waale loolu daf si am mm. ñoo xamante ni tey bi société bi di jël di jël euh, fonction mm. daf leen fekkoon congé maternité mm. ñoom bi ñu ñëwee société bi daf leen mënuñu leen bi ñuy jël affaire yi am nañu ñu leen fay non seulement duñu leen signer de parce que par exemple yow avril nga commencé mënuñu signer avril mënuñu signer mars parce que avril nga commencé donc loolu sax d'accord na mais duñ la fay loolu laa dul d'accord maanaam yow ne ñun waruñu la fay defeel nii ax ni ax nii demal caisse caisse de sécurité sociale moo la war a fay duñ la fay maanaam si sa congé maternité bi wala dootuñ la fay non ci congé bi congé bi parce que congé bi da nga dem tamit ci légalité nga dem mhm. donc war nga percevoir sa salaire mhm. mais ñooñu ba léegi ñu ngi toog di daw seen ginnaaw salaire kenn fayu leen kenn fayu leen est euh, a ngi def ay euh, ay euh, manifestation wala ay dox ñaxtu loo xam ne mën na moom laa lay euh, changer carrément la situation moom laa lay wax parce que tamit gars yi dañoo wax autoroute à péage bi am na xaalis li muy dugal oto li ñuy fay cher na donc fekkee yéen ñi ngi fay liggéeyee waaw yow li nga wax ni olof la mm. autoroute à péage bi moo am xaalis mais emploi autoroute à péage bi amul xaalis fay ñu leen lu baax non fa ñu leen fay baaxul condition yi ñuy nekk c'est très déplorable ñun eau potable sax amuñu ko maanaam booy dem seen kii boo yóbbuwul ndox doona mooy yóbbu ndox maa yóbbu ndékki ci de suite ñii dañu di góorgóorlu sax di indi ay añ di indi ay añ ci ay barke bien vrai que tuuti na trop et que matewul mhm. dañuy jël ñi nga xamante ne ñoo jege xaw a jege Dakar mu am nañu tuddee AMT bi mhm. mooy ñu nekk ci axe Mbour jàpp cees mhm. ñooñu dinañ am mais ñu am añ ñooñu dinañ indi nekk ci Thiès dem Touba ñooñu duñ am moo taxoon bu pass dañu wax carrément bu dee mën na leen jox ñëpp ngeen bàyyi ko léegi euh, lan moo waral exactement su euh, choc amee ci autoroute à péage bi affaire yi métti processus bi lan la lan mooy waral lépp dara dootul dem choc am ci autoroute à bi. waaw mais xam nga tamit voies yi bokkul. Mhm. tey dafa am voies yoo xamante ni c'est des voies automatiques bu dee voies automatiques yi moom yooyu da ngay ñëw dem. Mhm. bu dee ci voies yoo xamante ni tey amoo carte mënoo fa jaar bu dee foofu la amee choc tamit da ngay obligé gars yi dañuy baliser. de ce fait pour nga romb dafay xaw a jël temps parce que oto il faut ñu jëm ko remorquer. Mhm. wala euh, gendarme yi def seen constat ñu doo ko déplacer. Mhm. mais processus bi nag lay demee parce que am ñu naan parfois ça coûte excessivement cher ainsi de suite pour intervention bi parce que daa am ñoo xam ñoo koy yor spécial mooy service ma la wax sànq ni mhm. ñoom. ñoom ñoo tamit seen dund dafa metti. dafa metti moom ñi ma la wax def cinquante deux heures. te ñoo koy gérer. waaw yooyu yëpp xam nga tamit c'est des choses yoo xam dafa metti léegi ñoom bu ñu ñoom tamit benn benn ligne boo xamante ni bu ñu fa fekkale nii ngeen nii ngeen def ak nii. bu oto bi paanee ci niveau bii. Mhm. bu dee oto bu ndaw la. comme ni ko waxee catégorie quinze mille francs lay fay. Mhm. bu dee da doon ñëw Dakar da nga ci rond point bi mu fay la quinze mille. bu dee da doon dem Touba wala fenn da nga ci rond point bi. Mhm. mu fay quinze mille boobu trente mille ah, francs eh. kon kay looloo tax blocage bi di yàgg. ah léegi su fekkee nit ki dafa ñëw def choc ci kii bi war a ah. génne yorul xaalis comment. non boobaa da nga koy yóbbu ko ci parking bi. teg ko fa loolu du loolu mooy justifier blo blocage bi. c' est mm-hmm. juste que xam nga yu mel noonu des fois chauffeur yi mën a nekk fi ñoom. des fois mm-hmm. tamit constat gendarme yi wala ainsi de suite. yooyu mm-hmm. yëpp mën na nekk. mais yow tamit pour yow euh, euh, lan mooy solution par rapport ak yu bari am ci ci bi. ah man li ma gën a seetlu moom peut-être. téléphone bi chauffeur yi di waxtaanee téléphone bi di dawal di waxtaan wala yu mel noonu. il faut tamit ñu jéemoon mm. bàyyi xel ci loolu ba pare ak tamit euh, nu mu tudd daw bu foor bi euh, vitesse bi. Mm-hmm. yooyu tamit xam naa bu ñu ci bàyyee xel wala yu am tamit ñoo xamante ni tamit seen domaine la comme man sama domaine du loolu moom. mais parfois tamit évoqué taxaw sa kanam. Mm-hmm. ah tamit am na ñu koy kaas. Mm-hmm. parce que autoroute bi moom lampe yi bëriwul. mais xaw ma ndax ndax c' est normal wala c' est anormal mm. autorité war na am lampe war a amul lampe. parce que du sa spécialité mm. mais aussi tamit comme ni ma la waxee tamit Sénégal moom bëgguñu mm. dëgg. Mm-hmm. boo génnee di wax. Mm-hmm. nga xamante ne kii li muy wax dëgg la. Mm-hmm. di jot ay menaces. comme ñun ñi nga xamante ni tey kon actuellement ni ngeen génne def ay dinañ médiatique di wax jafe-jafe ci péage bi ñu ngi leen di menacer si suuf parce que bëgguñ xam exactement li fa am exploitation bi am foofu ak xaalis bi bi bi péage bi di dugal ah ma péage bi xam nga yow boo ko waxee man su ma ko waxee keneen su ko waxul mhm. yow mi voyage di dem parfois di nga tomber circulation wala affaire yu mel noonu di xam ne fii mi ngi dugal te autoroute bi du tëj. Mhm. dafay ma dafay marché 24 sur sur 7 day dem. Mhm. da ngay liggéey tabaski da ngay liggéey man Korité damaa liggéey. Mhm. maa liggéey 8 heures 16 heures amul changement. amul changement. non boo waree monter tabaski da ngay monter tabaski loolu mooy condition yi ñu teg condition yi c'est-à-dire loolu loolu sax mën nañ ne comme travail liggéey bi par car la. noonu la mais au moins sax nga xaw si am sax benn prime. wala yu mel noonu. Mhm. yow mi liggéey jour férié yow mi liggéey jour. mais amul prime amul. Euh, supplémentaire amul prime de panier. parce boo liggéey guddi au moins di nga am fam am prime de panier wala yooyu mais ni ma la ko waxee rek soo yóbbuwul tel sa lekk doo ko lekk de. mais seen yëngu-yëngal est-ce que desul. Euh, euh, mortala par rapport ak condition yi ngeen di dund. xam nga xam xam li nga bëgg. Mhm. neex na trop mais fi nga koy jërijee tamit. boo ko xamee moo solo. Mhm. moo tax mën na ne jotoon nañ def yenn démarches yi. waaw boo déggee ci sama commencement wax maa lay wax ne lii dañuy alerter. Mhm. parce que njëkk nañ teg takk suñu ay brassard ñu civiliser toog continuer suñu liggéey yow di nga xam ne ñi xam brassard rouge. boo ko mhm. rombee du nit koo xamante ni dafa kontaan. dafa am loo xam ne da ko metti mu bëgg a wax. ñu teg takk ko di liggéey léegi bi ñu woowee waxtaan dañoo ñaan nañu na ngeen tekki brassard yi. dina ci point yi ñu waxtaanee dina respecté lii yi nga xamante ni tey seen ak ak yelleef daan leen ko jox ba mu mat sëkk. Mm. mu des deux points yoo xamante ni mooy lan CDI bi ak euh, contrat yi nga xamante ni nu tudd euh, salaire yi nga xam ne ngeen bëgg ñu yokk ci retrouver kon mm. ñaar yooyu mooy des après dinañ ko waxtaanee. Mm. mais au moins yeneen quatorze yi nga xamante ni waxtaanee nañ ko. tamit ñu respecté ko. ñu respecté ko. prime de transport tey ki jóge Touba di ñëw ci péage bi. du jël bus bus amul bus buy jëlee Touba kee fekk fenn ngaa boog feneen ak feneen laa see yemale di di dugal ci péage bi da jël sa xaalis mm-hmm. amul bus buy jógee Jurbel di la jël di indi ñooñu ñooy jël seen xaalis di ko si def waaw donc ñi nga xamante ne dañoo war bénéficier prime de transport bi nañ leen jox seen seen seen kii seen seen seen. est-ce que fas ngeen def ay marche ay sitting ay grève de la faim. wala wala grève carrément. ngeen grève bu ñu fin defuñu dara di xaru bu ñu xëyee péage bi la ñuy baare ndànk ñëpp jaar national. lan ngeen fas def baare péage bi. on dañuy passer à la vitesse supérieure. Mhm. parce que bee négocier nañ waxtaan nañ mais dafa mel ni ñi waxtaan. Mhm. xam wax sax mu fay la à nga xam ni kii au moins quoi mi ngi lay bàyyi xel mais tey bu dee dañuy waxtaan ci nga xam ni kii tey soxla na lii ay axam yelleefam yaa ngi koy dëggate ne serait nga koy fay sax à mhm. mu ne au moins si na ma. Mhm. mais soo continuer di ko fay au delà de. de de le 10 le de suite mhm. waaw et tamit. wax ta wax du neex ak moom di ko préféré ay menaces wala yu mel noonu dafa am lu muy nduróol comme exemple dañ noon joos wala dañu cokkaas mhm. ñun tamit dañ leen répliquer mhm. dans les prochains jours wala prochain prochain semaine prochaine tey wala suba wala ginnaaw suba semaine prochaine dafa sori mhm. dafa sori mën nañ xëy suba sax def ko dañuy alerter nii rek xëy suba brassard brassard moom di nga ko gis <coughs> mais brassard bi duñ ko duñ ci romb 48 heures bëri na duñ ko te bi yoon bu ñu ko takkee xaaruñu ku ñu woo pour ñu waxtaan mm. satisfaction la xaar mm. bu ñu amee satisfaction lañ koy dindi bu amee satisfaction duñ ko dindi te duñ yem takk brassard bi maanaam bu boobaa képp kuy voyage yow booy dem Thiès national ngay jaay mm. ngay jaar doo jaar ci autoroute bi mais est-ce leen dàq yéen ñëpp dem uti ñeneen ah loolu yomb na loolu jotoon na menace yu mel noonu tamit mm-hmm. comme quoi que leen arrêté wul bi dinañ leen former yeneen autoroute bi santul mm. man daaw laa sant santul ndaw de mm. santul Ndiaye mm. santul autoroute patrimoine national ñu ñëpp ko moom voilà te président dafa am lu mu wax xëy ndaw ñu la wax wala du loolu mm-hmm. donc du ñu xool koo xam ne day ñëw pour pour pour dàq ndaw ñu tamit parce que donc yéen pare ngeen pour baare. pare nañ instant bii autoroute bi taxaw def ko vingt quatre heures quarante huit heures wala soixante douze heures. jusqu'à ce que ñu am satisfaction rek wala bu boobaa tam ñu takkal ñu mën a am fu ñu yóbbu. yéen ban euh, message ngeen di euh, lancer euh, nguuru Sénégal président sax Macky Sall laa wax par rapport ak seen situation ak xaalis bi nga xamante autoroute à bi mi ngi koy fay mi ngi mi liggéey autoroute bi même bi nga bu liggéey ay milliards par mm-hmm. jour mm-hmm. wala mu liggéey cent francs par jour mm-hmm. loolu dafa du bokk sur loo nga xamante ni peut-être dafa mais dans les normes war ngeen ko yëg waaw ma maanaam yow miy liggéey ci xaalis sax war na nekk ci condition boo xamante ni tey donc loolu moo fa nekkul. Mhm. tey suñuy condition dafa difficile de telle sorte comme ni nga ko waxee léegi nii. Mhm. ñuy wax ak président de la république. que ni ñun ñu waa autoroute Ila Touba. Mhm. li ñuy dund ëpp naa nettali bay xam ne mu demee et que problème bi buñ jàppee ne dañ koo saafara woon kenn saafara wu ko dañ na waxtaan. def na waa dalal ñu ñu dal toog di déglu boobu ba léegi nag déglu nañ déglu déglu ba sonn mais gis nañ ñii ñuy waxal. du ñu nit ñoo xam ne dañuy respecté seen ay kàddu toog nañu Ageroute mu jël ay engagement siñe ñu dem jox taara ba léegi signéwul hmm. mooy société intérimaire bi nanguwu signé nanguwu ci yeeyaat bi hmm. léegi nag ñun li ñu mënoon xaar dafa doy beneen bi mooy quarante heures yi moom la ñuy liggéey dootuñu liggéey quarante huit heures hmm. parce que ñu ngi liggéey quarante huit heures presque quatre ans mosuñu am heure supplémentaire ne serait-ce que ñoom ñu dolli personnel bi wala ñu changer planning bi et que ñëpp liggéey 40 heures li ñu jot a romb ñu fay ñu ko li ci def moom ku ne liggéey sa liggéey nga dem ñu fi mu ne foofu lañ toll ak ñoom. Mhm. ci condition yooyu ngeen di teg mhm. euh, tey jii tamit ban appel ngay lancé njiitu réew mi parce que euh, gis nañ ni peut-être yéen jafe-jafe yi. ay ndaw ngeen waaw. léegi xanaa balaa ñoo dugg ci ci. Mhm. <coughs> njiitu réew mi ma gën a insister tamit ci femme de ménage yi. am na ménage yi tamit tamit ñoom seen jafe-jafe yi nekk si autoroute dafa doy waar ñi ngi liggéey ñoom ba léegi ñoom trois nga leen bëggoon signé mars ba mai mai jot na mm-hmm. mm-hmm. liggéey nii na ñoo xamante ni dàq nañ leen am ñoo xam ne leen fay ba léegi te n'empêche ñi ngi continuer di liggéey seen liggéey teg ci di leen menacer di jox na leen date ba le 15 leen joxaat pour boo leen suñëwul dàq yi ñëpp indi xam nga idée bi mooy lan. Mm-hmm. lu tax ñu indi ay 3 mois wala yooyu. mooy lan lu tax ñu koy def. yow dañuy bëgg tey man su ma sañee 3 mois bu 3 mois yi jeexee man am naa moom am na beneen nit bu mu préparé fële boo xam ne duñ wala di. non da ngay indi sa ay nit rek moo gën a gaaw. ok dañuy indi seen nit yoo xam dinañ accepter condition yooyu. ñi ngi taxaw di xaar. Mm-hmm. ku si ne di am yow tey boo créé emploi di nga am tey sa nijaay dina jàpp loxo kenn sa bàjjen dina jàpp loxo kenn ainsi de suite mm. situation noonu demee donc idée bi du nekk ci wàññi personnel wala yooyu mais changer personnel changer personnel loolu la maanaam trois mois yi jeexee ngeen tëb ñeneen ñëw waaw ñi dañuy jóge fii ñeneen ñëw ñun moom suñu cas pour ñu ci benn un boo xamante ni dootuñu ko renouveler incha allah mm. rabbi mm. mais femme de ménage au moins ñoom amaguñ loolu techniciens yi cabine yi. am ñoom ñooy ñëw ñooy ñëw def ko ñoom tam. maintenance bi waaw merci. Mm-hmm. voilà voilà le mot. Mm-hmm. ñoom tamit mooy loolu seen premier salaire 17000 moo si manqué woon. seen premier salaire 17000. moo ci 17000 moo si manqué. Mm-hmm. bi gars yi ñëwee ñoom 17000 moo si manqué. te ñoom tam seen contrat ba léegi c'est des contrats yoo xamante ni peut-être verbal lay doon. pas contrat sur le papier. donc daal ñëpp la ñuy exploité ci péage bi sans exception waa koy à péage nga comprendre bu baax a baax mhm. c'est ça le problème quoi kenn dundul si jàmm léegi euh, ban message peut-être ngay lancé parce que gis nañ ni kon exploitation boobu boobule ci péage bi ay ndaw ñoo koy dund xëyu ndaw yi ainsi de suite politique bi nga xamante ni euh, njiitu réew mi teg na ko pour nee na jàppale ndaw yi ñu am liggéey am xëy toog ci réew mi. bañ a jël gaal yi ainsi de suite. waaw moom xam nga ñu jàpp bu baax ni mu ngi déglu émission bi. Mhm. et que na problème bi amaana day jàpp ne problème bi réglé woon. réglé woon moom ak suñu ministre de tutelle euh, Mansour Faye. peut-être damay jàpp parce que du ma wax kenn yëgul problème bi ah. Hmm. est-ce bind ngeen Mansour Faye. Mansour Faye bind nañu ko. Hmm. jaar ci euh, chef chef cabinet chef de cabinet hmm. def nañ ko moo tax man sànq ma ne la. du nangu kenn ne yëguma problème bi. mais amaana yëg naa ko mais damay yaakaaru ne rek leen nañ ko loolu mën naa ko dégg mais yëguma ko du ko dégg. donc ñu leen ñu leen fàttali bu baax a baax wala ñu leen yëgal nii. problème bii nga xamante ni ci fan problème bi réglé wul dañ ñoo woowoon waxtaan defal ñu te ñaari weer a nga nii ñu ngi toogaat toog nañ di xaar te li ñu waxtaanam yaakaar nañ dinañ ko respecté duñ ko respecté te li gën a garaaw. Mhm. mooy gars communication amul amul. yow dangay ngay xëy du ñu communiquer ak yéen da ngay xëy suba rek ñu envoyé benn note de service lii ngeen di def defee leen ko nii. ku ko defeewul nii. ne mhm. ñu sanctionné ñëw nañ ba ci ne tey boo boo feebaree. nga am papier justificatif papier médical. Mhm. maanaam papier certificat médical dinañ ko dinañ ko accepter mais duñ la fay au mhm. même titre ki nga xamante ni dafa ñëwoon. loolu ban d'accord moom maanaam su fekkee da nga tëdd sa kër feebar une semaine. waaw indi certificat médical. waaw maanaam bu ñu lay fay sa salaire dinañ si dagg une semaine. duñ ci dagg une semaine comme ki nga xamante ni dafa dafa dafa absente te justifié wul. Mhm. xam nga absence injustifiée. mais di am dina am lu ñu si dagg. dañ ciy dagg loolu. ok xam nga loolu remettre en question serment médecin bi la. Mhm, peut mhm. yow mi dem ba médecin xool la xam ne yow mi. feebar donc. nga ñëw jox leen ko papier médical mais ñu dagg la. bind message ne carrément boo ko présenté dinañ ko nangu mais daan la waa daan daan daan ko wàññi xaaj duñ ko wàññi saa duñ la fay au même titre que ki nga xamante ne dafa ñëwoon liggéey si. Mhm. loolu ban façon. maanaam dina am luñ comp si sa salaire waaw luñ ciy mhm. yaa ñuy comp weer bu nekk maanaam li ñuy comp rek. dagg mhm. daggee maanaam deux mille deux mille yooyu. minimum dañu laa six six cent mille franc weer bu dee. pour lan man tey soo sama xaalis euh, mille deux cent francs mhm. ma ñëw gis mille francs et que autant mille deux cent laa doon jot mais deux cent francs yi au moins nga xam ne fii la dugg amul benn explication bu leen tegal amul communication ñun ak ñoom euh, léegi pour yow lan moo mën a euh, jàppale président Macky Sall naka la mën a jàppale ndaw yi fii ci Sénégal ah na tëgg ci table bi rek moom koy teg na ay projet yu leer mhm. <laughs> wax dëgg yàlla xëy ndaw yi moom li mu tënk bëri na loolu moom maanaam moom xar na ci tànk tubéyam ba tey. teg na ay projet yu leer comme. projet weesuwul tey autoroute Ila Touba bii. Mm-hmm. boo ko tegee teguñu ko fa. jël ay jël ay Gambien ñu ñëw mm-hmm. wala ay Malien wala leneen. loolu pour jeunesse bi la. Mm-hmm. tey ñu ñëw au moins am si luñ jàpp. parce que tey demoon jàngi ñun tamit on a été élèves et peut-être yàlla mooy mooy jagleel tey mm. yow yàlla journaliste lay def man tey dafa na ma ci autoroute bi ngay liggéey keneen tey avocat la dama la ainsi de suite mais nañ mettre ñëpp au même pied d'égalité mm-hmm. tey bul xeebal nit ki tey li nga xamante ni ci lay xëy jox li nga xamante ni mooy àqam ak yelleefam te man bu doon sax tey chinois ñoo ñu koy teg wala français moo ñu koy teg à la mais nit ku ñuul la comme yow mm-hmm. sénégalais la comme yow moo la donc njiitu réew mi mi ngi mi ngi mi ngi liggéey pour jàppale ndaw yi. Ah, mais parfois. teg na ay projet <laughs> waaw dégg nga ñoomu jiital ñoo ñoo doxalul yow. autoroute Ila Touba. les projets mi ngi fii. Mhm. yëpp ainsi de suite. donc kooku au moins nañ ko reconnaître nañ ko reconnaître loolu quoi mi ngi def ay effort pour nit ci dem liggéey. Mhm. mais tey ñi nga ñi nga ñi nga mandaté tey foofu pour ñu ñu gérer yu mel noonu ñoom tam war na xool gestion boobu tam bu baax. Mhm. yéen du ngeen marche dem palais. lu ñuy def palais te autoroute bi wax dëgg yàlla nekk fii. Hmm. ñëpp di fa jaar ñun ñu si liggéey am possibilité baare ko. ñu comme ça seen message jàll une hmm. bonne fois. jeex et que si loolu lañ pare pour def luñ ci góobee gar. voilà euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi temps bi dal nañu Mortalla Ndao léegi dafa am lu ma lu ma fàtte lu ma fàtte. waaw kon nga souligner ko la ñuy tàggatoo lu ma fàtte hmm. souligner. mooy avant dañu avant ñuy kii dañoo demoon ci inspecteur. ñu waxoon carrément ci caducité contrat yi. yi nga xamante moom moom moom la ñu waroon. maanaam contrat yi dafa caduc. dafa caduc c' est des contrats nekkatul. avant ñuy signé. Mhm. yëg naa problème bi que contrat yi c' est des contrats yoo xam ne c' est caduc li tax ma wax ma rappelé waat loolu. Mhm. mooy dama laa wax sànq ne jotaguñ suñu retour contrat ba léegi lan moo tax jotaguñ ko ñoom ban réponse lañu am ci ci inspecteur ba nangu ñu jox suñu retour contrat. boobu problème la problème la problème la bu rëy léegi xanaa nag tamit. Mhm. di sant di la sant rek di la mm-hmm. gërëm. Mm-hmm. bu baax a baax si dalal bi ñu dalal di euh, wootewaat bu baax a baax. Mm-hmm. parce que ëllëg dafa jar a sóoraale. et ñu bañ a wax ni da ngeen waroon yëglu ba pare. yëglu nan aartu nan. def nan lu ne que ëllëg si biir dañuy bañ bett kenn askan bi yëpp yëg kuy dem tukki nga ñëw ci autoroute bi gis fa ni lii laa fa gis gars yi dañoo baare autorité nañ kenn liggéeyul. waxoon mhm. mois de mars ba léegi ñu ngi koy wax. def lancé ngeen alerte bu yàgg. jaar ngeen fi ngeen war a jaar kano yi ngeen war a jaar yëpp. yëpp jaar ngeen fa. voilà pour de meilleures conditions de travail ñu koy remercier bu baax a baax kii di Mortal Ndaw euh, bokk ci euh, euh, collectif des travailleurs de l'autoroute à péage nekk ci Ila Touba bi ñu koy remercier bu baax a baax di leen remercier yéen tamit suñu auditeur ba samedi prochain 10 heures jàpp 11 ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen